allahu bokkut ak allahu su fekkee da ngay kàbbar kàbbaru armal nga xam ne dara nekkul ci ginnaaw baat bi kon allahu akbar ngay wax soo ne allahu akbar du wér ndax dangaa laaj ne ndax yàlla moo fi gën a màgg te dañ laa wax ne dangay wax ne yàlla moo fi gën a màgg kon waroo laaj ndax moo fi gën a màgg soo ne allahu akbar loolu lay tekki soo ne allah allahu akbar loolu tam mooy ampo moo fi gën a màgg kon doo xëcc huu bi da ngay wax allahu akbar waaye soo ne allahu akbar dañ la koy tere soo ne allahu akbar moom tam baa boobu kenn du ko xëcc ndax suñu xëccee baa bi dootul tekki yàlla gën a màgg waaye ay gone yu jigéen lay tekki te ne ci biir julli di wax ay baatu gone yu jigéen yi nangam nangam loola bëgguñu ko ci julli kon baat yooyu daa jara jàng lool xam fi ñuy xëcc ak fi ñu dul xëcc allahu akbar noonu lañ koy waxee allahu akbar te bu fekkee ne baat bi su wérul duggagoo ci julli gi te julli tanhaa anil fahshaay wal munkar ngay julli ba nekk ba noppi bëri ay problème lool mooy xëy na julli yooyu jaaragul yoon ndax nee nañu julli day tere dugg ci yu baaxut te ku dul dugg ci yu baaxul doo am ay jafe-jafe ginnaaw julli nag dafa ñëw ngir faj ñi nekk tabarkàlla pajukaay yoo xam ne ku xëy ñu jox la ñaari comprimé ku tisbaar jot ñu jox la ci ñeent takkusaan ñu jox la ñeent timis ñu jox la ñett gee ñu jox la ñeent téewul ngay wéradi mooy damaa defe ne niñ la wax nga naanee comprimé bi nun nga ko defewul moo tax ba léegi taneegoo waaye su fekkoon da nga koy naane ni ñu la ko waxee mën naa am nga tane moo tax wax baat yooyu jar na bàyyi xel allahu akbar wa ñetteelu farata bi ci julli alqiyaamu li takbiratil ihram muy wal qiyaamu laha taxaw bi ngay taxaw ngir kàbbarub armal bi diggante allahu ak akbar loolu farata la soo ko mënee ba noppi bàyyi ko fa dem toog te fekk mën ngaa taxaw kon julli gi day ñàkk wér moo tax bu la yàlla nattoo nga yor ay beeke di ko taxawe mën ngaa taxawee beeke yi nga ne allahu akbar taxawaay ba jafe la nga toog ca la ca def moo tane woon ñëw rek daal di àgg suuf toog noonu ndax lépp loo mën ci julli bàyyi ko fa def leneen day yàqu julli bu ñu dikkee ca biir incha allah ca axwaalu salaat yi dinañu gis ne boo mënee benn mbir bàyyi ko def beneen boo xam ne bii boobu mën nga bële julli gi dafa yàqu kon ñetteelu farata bi ci julli mooy taxaw bi ngay taxaw ngir wax allahu akbar ñeenteel bi mooy alfatiha ñeenteelu farata bi mooy alfatiha li tàmbalee ci fatiha ba ba ca wala boolin fi mu tàmbalee ba ca wala boolin loolu ak loolu farata la ci ak julli kon su ko nit ki bàyyee julli ga du wér fatiha ak it fexe ba jàng ko njàngin mu wér baat yi wér masque yi wér ngay xëcc fi ñu war a xëcc bañ di xëcc fi ñu war te xëcc ni ma ko waxee léegi rek ñàkk koo jàng ni mu nekkiwul mën naa am muy nekk ci nit ki loo xam ne day def jeexantal ci moom faatixa moomu nag xëy na daan ci mosuñu incha allah ci ay waxtaan ndax loo xam ne bët bu set nga jàng ko fukki yoon ak juróom-ñaar bët bu set nga jàng ko moom faatixa fukki yoon ak juróom-ñaar ndax sa rakkaa yi ngay julli yëpp loolu jar naa bàyyi xel bu baax a baax a baax wa juróomeel ba ci xaratay julli mooy alxiyaamu li qiraatil fatiha mooy wal qiyaamu laha taxaw bi ngay taxaw ngir jàng fatiha loolu tam farata la fii nag lenn ca ulama yi dañuy wax rek taxawaay taxawaay boobu ñu dugal ci kàbbaru armal dugal ci taxawaayu jàng faatiha moo tax buñ ko dee lim léeg-léeg ñu àgg ci fukki farataat ñett te duñ àgg ci fukki rek ñeent am na ñoo xam ne foofu la lim bi di génne kon juróomeelu farata bi moo di alxiyaamu taxaw li qiraatil faatiha ngir jàng li nga xam ne moo di alfaatiha loolu kon farata la moom it ci julli muy juróomeelu farata bi taxaw ngir jàng faatiha juróom benneelu farata bi moo di war rukuu ak rukoo rukoo mooy ni ngay fëggee jàpp ci sa ñaari bëti óom téye ko bu dëgër sa ginnaaw gi tàlli tàlli boo xam ne buñ ci sottee ndox ndox mi day xàjjalikoo am lu jëm ci kanam am lu jëm ci ginnaaw bu ndox mépp jëmee ci kanam ni nga rukkoo ay baaxut bu ndox mépp jëmee ci ginnaaw ni nga rukkoo ay baaxut ginnaaw gi dafa war a yem jub xocc ba sa kemtalaay kàttan waaye bul sëgg bu baax ba say bopp nekk ci diggante ñaari tànk yi bul teen bu baax ba ku tegoon ab tom ci sa ginnaaw gi mu baras ci ku jëm ginnaaw mën ngaa sëgg sëggoo daal ku teey bu tegoon pam ci su digg ginnaaw gi du wadd kon rukkoo ba baax na waaye bu dee buñ ko tegee mu tarxiis jëm suuf buñ ko tegee ci digg bi mu tarxiis jëm ginnaaw ñaar yooyu bu mu ci def rek rukkoo ba du noonu farata la nag soo ko bàyyiwul xel mën nga koo ñàkk def far sëg julli yàqu nga sëgg lool mu yàqu wala nga téen lool mu yàqu kon ni ngay def mooy sëgg sëggin woo xam ne ginnaaw gi day tàlli ba li jëm ca kanam ak li jëm ci ginnaaw tàlli ñareet sa kemt lay kàttan loolu moo di rukkoo juróom-ñaareelu farata bi ci julli nee na war rafu minhu mooy siggi ci rukkoo boo rukkooyee siggi bi ngay siggi ci rukkoo ba siggi jub xocc loolu ci farata yi la bokk da ngay gis koo xam ne kii bu dee julli bu rukkooyee buy siggi bu siggee ba ndigg li bëgg a jub rek mu daal di baras ci ko dem si jóoti koo ko gis man nga ne ko sa julli gi bàyyi nga ci benn farata te moo di ar rafu min ar rukoo yi foofu mooy fi ñuy waxe sami allahu liman xamida nga siggi ba jub loolu ci faratay julli la bokk amma boo siggiwut nag xanaa xaw a siggi tuuti rek daal di jàll daal di sujooti loolee mën ngaa bàyyi foofu kon benn farata te bàyyi farata ci julli day tax julli ga manqué te julli gu manqué ab farata du wér wa juróom-ñetteel bi as sujuudu ala al jabha mooy sujoot ci sab jë sujoot ci sab jë mooy farata sujootu bakkan bi du farata waaye bu jëbi moom farata la moo tax mu lima mu waxaale ci ne wa sujoodu alal jabhati mooy sujoote jëbi du fab jëbi teg ko ci suuf bu fekkee ne manu na bu fekkee ne suuf ni ko fa xanaa basan wala sajaada teg bi nga ko ciy teg dina wér loolu ci farata la bokk sujjóot nag boo ko dee def moom it nga fexe ba jëbi laal suuf te tege ci am na yeneen cër yu koy gunge muy loxo yeeg óom beeg ñaari ca tànk yi waaye li ciy farata moom mooy jëbi moom na laal suuf loolu la ñuy tuddee sujjóot wa juróom-ñeenteel bi ar rafu min as sujudi sigg ci sujjóot wa rafu minhu sigg bi ngay sigg ci sujjóot bi ba toog loola farata la maanaam am na ñu nga xam ne dañuy teg seen bi yëkkati ko tuuti quelques centimètres daal di ko cay delloowaat kooku gis ku ne nee ko bàyyi nga faratab julli te ku bàyyi faratab julli sa julli dafay wàññiku te julli gu wàññiku farata dafay yàqu loolu la borom téere ba maam Cheikh Alxaaji Malik bi tuddee sariqatun fi salaati mu ne sàcc ci julli nit kuy julli ba noppi di sàcc boppam ñu ne ko nan la nit di sàcc boppam mu ne moo di di sujjóot sujjóot ba mel ni ganaar guy cof pepp wala mel ni baaxaañ buy cof ab sax bu muy lekk gis nga ci nit ñi ñoo xam ne ñu noonu la ñuy sujjóote dañ naan jëbi tegg daal di koy yëkkati lu toll ni ab dig rek daal di cay delloowaat jëba fekk du noonu war ngaa siggi ba toog ba wax fa sax baat yooyu ñu doon wax ci sunna subha mu di rabbi xfir lii wajbur nii wahdinii waafu an nii wa aafi nii tabarkalla wa bokk na ci li nga xam ne mooy farata yi muy fukkeel bi al itidaalu mooy yemoo yemoo mooy bi nga rukooxee na nga na ca tekk bi nga sujjootee na nga yemoo bul nekk di yëngal say loxo xasalu fii ñot di fële lenn lu nekk nga def ko kuy julli day def itidaal mooy yem bañ a yàng say tànk ba mu ëpp bañ koo kebale ba mu ëpp bañ di xasalu di yëkkati say loxo ba ca kaw a kaw yooyu yëpp ñu bañ koy def xanaa mu def al itidaal ba ku gis kii julli xam ne kii ak teey wala ak yem ñu ngi ci moom loolu mooy juróom wala boog fukkeelu farata yi ci farata yu julli wa fukkeel ba ak benn ak tumaniinatu mooy sax sax ci wolof mooy loo def lu ne nga ne fa teg ba ngay taxaw di jàng faatiha ñu séen la nga ne fa teg ba ngay rukoo ñu gis la nga ne fa teg da ngay siggi ci rukoo ba nga siggee nga sigg ba ne fa teg da ngay sujjóot ba nga sujjóotee nga sujjóot ba ne fa teg ba nga siggee ci sujjóot nga siggi ba ñu yëg ne yaa ngi ne fa teg yooyu ngay def lenn lu nekk nga def ko ne fa teg ba ñu yëg ne yaa nga fa teg loolu la ñu tuddee attuma aniina waaye looy def jaar ci rek karañ karañ jaar ci jaar ci jaar ci ba mu jeex yooyu bëggewuñ ko noonu moo tax ci wàllu julli nga gis ay zikar yu ci nekk ay subhaana rabbil a'la subhaana rabbil azim ak yu demee nekk yooyu yëpp ndax leen lu ci nekk soo fa nekkee baat yooyu mën la faa téye ba nga mën caa sax wa fukkeel bi ak ñaar ci faratee julli mooy at tartiibu bayna al faraidi nga toftale diggante faratee julli ya wa tartiibu bayna faraidiha toftale diggante faratee xam nga julli bi nga ñëwee da ngaa njëkk a yéene kabar kabar armal daa di tàmbali jàng faatiha ba mu jeexee nga rukoo ba nga rukoo ba noppi nga siggi ci rukoo ba nga siggee ci rukoo nga sujjóot ba nga sujjóotee nga siggi ci sujjóot yooyu ngay def loolu la ñu tuddee ak tartibu bayna faraidiha mooy nga toftale diggante faratay julli yi waaye doo ñëw daal di toog taay ba mu neex la nga jóg def leneen da ngay njëkke la njëkk teg ca la ca teg wa fukkeel bi ak ñett assalaamu mooy sëlmal assalaamu min hamsati al limimikum ba demee ca tasawudu sixaar noonu la ko maam borom Tuubaa radiallahu anhu waxe moo di assalaamu aleykum min hamsati al limimikum waaye foofu tam ni nga doon waxee allahu akbar nu ngay bàyyi xel ci sëlmal sëlmal moo lay génne ci julli gi julli ba noppi war a sëlmal far julli ga yàqu loolu tam léeg-léeg mu am gis ko julli ba noppi rek daan ne salaamaaleykum su boobaa julli gi waxuloo asalaamualeykum am na ñuy wax it e salaamualeykum léegi boo ne e daan ne salaamualeykum loolu tam ba tey baat bi nuñ ko war a waxe waxe woo ko noonu doo it ne salaamun aleykum da ngay wax assalaamu aleykum noonu la ñu sëlmale ci julli noonu it la ñuy nuyoontee suñu doon nuyoontee assalaamu aleykum ak wa aleykum salaam kon loolu mooy fukkeelu farata bi ak ñett fukkeelu farata bi ak ñeent mooy wal juluusu lazi ak jataay ba nga xam ne yuqaarinuhu dana lënkalikoo ak sëlmal ba maanaam toog bi ngay toog jataay bu ndaw boobu nga xam ne ci ngay waxe assalaamu ak aleykum ñaari baat yooyu diggante bi ngay toog di ko wax loolu mooy fukkeel bi ak ñeent ci farata julli ñu ñëw nag ci albayaan wala bëgg leeral yi ñu doon wax wax nañ léegi ne faraidu salaat yi moo di yi nga xam ne isa turikat laa tan jabiru bi sujjóotin suñu ko bàyyee sujjóot mënu koo defar julli day yàqu ci bàyyi benn farata ci farata yii te tey ko naka noonu suñu ko bàyyee ci juum te mu yàgg yooyu mooy yii ma tudd léegi war leen a indil adillatuha war leen a indil shawahiduha tegtal yeeg yi ko seede bu ñu jëlee yéene mu di niyatu salaati al muayyana te mooy bi da lënkaloo kàbbarub armal bi yéene mooy dogu ci xol ngir jooxe julli gi nga xam ne moom la ñu ràññee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis mu ne innama al amalu binniyat wa innama li kulli mriin ma nawa rawahu cheytaan nee na jëf yi yépp ci yéene lay wére nit ku nekk la muy yéene ca la muy jëf lool la ci am moo tax kon nit ki su dee jullit na ca yéene ndax mu am ca la mu ca bëgg a am innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mriin ma nawa jëf yépp mi ngi wére ci yéene nit ku ne it la nga yéene ca la ngay jëf moom la la ca yàlla tabaraka wa taala di fay ñaareel ba mu di kàbbarob armal bi te mooy bi ngay dugg ci julli gi baat bi ngay wax ni allahu akbar mu dugal la ci julli gi ndax julli boo cay dugg dafa am lu la cay dugal yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam miftaaxu salaati attahuuru wa taxrimuha attakbiiru wa taxmiluha assalaamu rawaahu abu daawud wa ahmad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na caabi julli mooy set caabi julli mooy set miftaaxu salaati attahuuru caabi julli mooy set nag moo di kon ku setul ku nekk doo mën a dugg ci biir buntub julli caabi julli mooy set moo di kon ku setul doo mën a dugg ci biir julli ndax yoroo caabi jëla cay dugal wa taxrimuha a takbiru la koy jëmmal di ko taxawal di la ca dugal mooy allahu akbar la la cay génn nag mooy assalaamu muy sëlmal ba naka noonu xadisu rifaa ibnu rafi mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na laa tatimmu salaatu ahadin min annaasi xatta yatawaddaa fa yadaa alwudua mawaadicahu summa yaquula allahu akbar rijaaluhu rijaalu saxiix nee na julli kenn ci nit ñi du mat lu dul dafa jàpp teg njàpp la fam war a tege daa di ni allahu akbar dugg ca julli ga kon loolu ñaari xadis yi la yoo xam ne bu ci nekk day wone ne kàbbarub armal farata la ci julli ñetteel bi ak ñeenteel bi mooy taxawaayu kàbbarub armal ak taxawaayu fatiha fala yasixaani min juluusin lil qaadi kàbbarub armal du wér ci toog ci ku mën a taxaw jàng fatiha du wér ci toog ci ku mën a taxaw léeg la nga gis ndeysaan jigéen ju yendoo wër Dakar ba julli jot timis mu toog daal di koy gàppoo loolu du wér dangaa war a taxaw kàbbar julli ndax mën ngaa taxaw qaala allahu taala fi surati albaqara aaya ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett xaafisu ala salawaati wasalaati alwusta wa quumu lillahi qaanitiin mu ne na ngeen wattonte ak julli rawatina julli ga ca digg ba te bu ngeen di julli ngeen taxaw qaanitiina ngir jaamu yàlla tabaraka wa taala naka noonu xadiisa Imran ibnu Xusayn radiallahu anhu mu ne kaanat bi bawaasiiru فسألت النبي عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري عليه الصلاة والسلام من حديث بي بن nit bu ñuy wax Imran ibnu Xusayn moo ñëw ne alayhi salaatu wasalaam man de damaa yore ay taab damaa yore ay taab waaw léegi nan lay jullee ku yore taab mu muy jullee mu ne ko na nga taxaw julli soo ko mënut nga toog soo ko mënut nga tëdd waaye lim ko njëkk wax mooy salli qaa'iman jullil taxaw ñu dégg ci kon ne taxawaay bi ngay taxaw ngir kàbbaru armal taxawaay bi ngay taxaw ngir faatiha yooyu ñaari taxawaay ay farata lañu juróomeel ba wa qiraatu alfatiha tegtal bi mooy xadiisu ubaada ibnu samit mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa salaata liman lam yaqra bi fatihati alkitab képp koo xam ne kii jàngaloo fatihatul kitab sa jullit wér rawaahu ahmad wal buxaari wa muslim ñu ñëpp nekk nañ ko ahmad ak buxaari ak muslim ñu ne laa salaata li man lam yaqra bi fatihatil kitab ku jàngul fatiha amoo julli baatu ku jàngul fatiha amoo julli day tegtale ne kon jàng fatiha farata la ñàkk koo jàng day tax julli ko di wér naka noonu xadisu abi hurayrata radiallahu anhu nee na alayhi salaatu wasalaam nee na man salla salaatan lam yaqra fiiha bi fatihati alkitab wa fi riwaya bi ummi alquran fa hiya qidaaj hiya qidaaj hiya qidaaj xayru tamaam rawahu ahmad wa shayqaan wa xayruhuma hadisu abu hurayrata bi nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ak julli te julli ga jàngu ca faatiha am na beneen nett la mu ne ku julli ak julli te julli ga jàngoo ca ndey alquran julli ga manqué na julli ga manqué na julli ga manqué na matut ñetti yoon la wax manqué na door ne matut sallallahu alayhi wa sallam kon addis yooyu dañ ciy jàng moom it ne jàng faatiha farata la ci ak julli juróom benneelu farata ba juróom-ñaaral bi mooy ar rukuu wa rafu minhu rukoo ak siggi ci rukoo soo demee ci suratul xajji aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ci alquran yaa ayuha allazina amanu irkau wasjudu ee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla irkaaw rukoo leen wasjudu sujud leen loolu bu ñu ko déggee ñu jàng ci kon ne alquran dafa tudd irkaaw rukoo leen ñu ne kon rukoo faratal wa li qawlihi alayhi salaatu wa salaam li musii salaatihi ak it hadis ba yonent bi waxoon ka nga xam ne dafa dafa dafa julli woon te julli ga du noona ñëw fekk ko ci jàkk ji nuyu ko mu ne ko demal julli ji du noonu mu julli ñëw fekkaat ko mu ne ko demal julli du noonu ba mu ko koy jàngal daf ne koon su marka xatta tatma inna raakian su marfa xatta taatadila qaaiman mu ne ko bi nga jàngee fatiha ba noppi ginnaaw gi da ngay rukoo ba ne tekk fekk yaa ngi rukoo nga sigg ci rukoo ba dal di xocc taxaw fekk yaa ngi sigi ci ruko ñaari xadis yi wala xadis bi ak aay bi buñ ko boolee daf ñuy jox ne kon ruko farat la ci julli ku ko bàyyi sa julli du wér juróom-ñetteel bi ak juróom-ñeenteel bi ak sujoodu wa rafu minhu sujood ak siggi ci sujood aay yii weesu benn bu ci nekk day tegtale loolu ci ruko boo ci boolee hadis bi nga xam ne moom la waa ji julli woon julli ga noonu ba ko alayhi salaatu salaam di jubbanti bokk na ca lam ko waxoon mu ne ko su masjud xatta tatma inna saajida su marfa xatta tatma inna jaalisa rawahu cheikhaani wal arba mu ne ko nga sujjóot ba yem fekk yaa ngi sujjóot nga siggi ci sujjóot ba ba yem fekk yaa ngi toog fukkeel bi ak fukkeel bi ak benn ci faratay julli mooy al juluus allati yuqaarinu salaam wassalaam al muarraf bi al moo di toogaay bi ngay toog nga xam ne moog sëlmal bi ñooy ànd ak sëlmal bi ci boppam nga xam ne day am al al gi muy am nag alu shamsiya la te alu shamsiya kenn du ko liir al kon li muy wax mooy assalaamu aleykum ndax julli deesu ci génn lu dul ci sëlmal kuy sëlmalit du sëlmal lu dul mu toog mu ne miftaahu salaati attahuur wa taxrimuha takbir wa taxliluha salaam rawaahu ahmad wa shafii wa abu daawud hadis bi romb woon na léegi caabiy julli mooy set la la cay dugal mooy kàbbar la la cay génne mooy sëlmal bokk na ci liy tegtale ne sax toog bi ngay toog ak sëlmal bi farata lañu alayhi salaatu wasalaam sax gim saxoon ci balaa génn ci julli wax assalaamu aleykum hadis ba ne na it sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gisee may julli rawaahul buxaari jëf yi ngay jëf ak yemoo bi ngay yemoo ci jëf yi ngay jëf yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon na ka doon julli te julli ga wérutoon mu ne ko isaa xumta li salaati fa asbasil wudua suma staqbilil qibla mu ne ko soo jógatee di julli na nga njàpp njàpp lu mat jublu xibla kàbbar jàng li nga mokkal ci alquran beneen riwaaya bu abu daawud mu ne nga jàng fatiha ak lala soob ci alquran soo ca noppee ca njàng ma nga rukoo ba sax ca rukoo ba soo noppee ca rukoo ba nga siggi ci rukoo ba sax ca siggi ba soo ca noppee nga sujjóot ba sax ca sujjóot ba soo ca noppee nga siggi ba sax ca siggi ga nee na nga def lii ci sa mboolem julli yépp soo defee lii mu ne ah mu ne ko tammat salaatu ko sa julli mat na soo wàññee lii wàññi nga sa julli axrajahu sabaa bi alfaasin mutaqaariba nettalikati xadiis yi ñoom buxaari muslim ahmed abu daawud nettali nañ ko ci ay baat yoo xam ne ñii wax nañ ci lii mu yokk ca ñii wax ci lii mu yokk ca fukkeel bi ak ñeent ci faratay julli mooy attaque bi ak tartibu baynal arkaani moo di toftale bi ngay toftale diggante farata yi mu nekk lu toftaloo hadiisu ki nga xam ne dafa julli woon te juum nga xam ne nekk la woon nañ ko léegi noonu la naka noonu it asahabatul kiram nii lañ ko doon defee mooy njëkk la njëkk teg ca la ca tege teg ca la ca tege ba baa ngay ak si fi nga xam ne fi la nga naka noonu alayhi salaatu wasalaam noonu la ko waxee ca hadis ba sallu kama raaytumuni usalli julli leen ni ngeen ma gisee mooy julli rawahu lbuxaari su boobaa fala yajuusu taqdiimu mutaaxirin fiiha wala taxqiiru mutaqaddimin wa illa batalat salaat kon du dagan ngay jiital lu war a def ginnaaw wala ngay defal ginnaaw lu war a jiitu loola lenn du ci dagan lay dagan mooy nga defe ko ni ko alayhi salaatu wasalaam doon defe li war a jiitu nga jiital ko li war a def ginnaaw nga defal ko ginnaaw su ko defee kon loolu mooy bind bi nga xam ne moom la ñu am tey ci wàllu faratay julli xanaa dellu ci ginnaaw tuuti rek benn tomb mu di suñu bind bi weesu ci jullee tubéy ju dara tegewul jullee tubéy ju dara tegewul da doon wane léeg-léeg nga gis ku yor mbubb moo xam ne ay mbind nga ca ginnaaw wala jëmmi nit wala yu demee ni ki yooyu nit di jullit sa ginnaaw di gis nit kooku loolu mën naa am mu am gàllankoor bu mu gàllankoor ci ak julleem kon nag bind tey da doon jàngale ñaata faratay julli ñoo am bind tey bi ne ci Laxdari faratay julli nekk na fukk ak ñeent yoo xam ne benn bu ci nekk farata la ci julli ba ci njëkk moo doonoon yéene bu ñaaral moo doonoon kàbbarub armal bu ñetteel bi moo doonoon taxaw ngir kàbbarub armal bu ñeenteel bi moo doonoon alfatiha bu juróomeel bi moo doonoon taxaw ngir jàng fatiha bu juróom benneel bi moo doonoon ruko bu juróom ñaareel bi moo doonoon sigi ci ruko bu juróom ñetteel bi sujjóot bu juróom ñeenteel bi sigi ci sujjóot bu fukkeel bi yemoo bu fukkeel bi ak benn sigi ci yemoo sax ca bu fukkeel bi ak ñaar mooy sëlmal bu fukkeel bi ak ñeent mooy toog